asalaamaaleykum wa rahmatullah mbokk yi Leewtoo TV nuyu nañ leen ziar leen Leewtoo 100 pour cent lamb la ñu wax Babacar la si kàddu gi Talla Ndiaye sa micro bi ak kan suñu rak Modou Mané tey nag ki ñu toogal yaakaar naa bu ngeen ko gisee duñ leen ko présenté parce que xam nañ ko si Sénégal ci lépp lu mu mënta doon waaw waxuñu sax lamb mais Sénégal moom xam nañ kan mooy ki ñu toogal ñu jëm si benn dat boo xam ne nag date bu jar a bàyyi xel la muy le 13 juillet maanaam. fukki fan ak ñett ci mois de juillet bii nu jëm diggante kan Lac de numéro 2 ak kan Boy Niang Baye Ndiaye tëgg ko drapeau Alioune Sarr meeru géeja way looloo am taala Baye nag a ngi nii tung ni du teew ñuy natt si ak ñu bëgg nag am ay leeral si combat bi Baye maa lay bëgg di la ziar. maa ngi lay fay Babacar di la nuyu di nuyu sama xarit sama copain Talla Ndiaye di nuyu seen technicien bi ngeen àndal. Mané ak waa Leewtoo yëpp di nuyu waa làmb ji yëpp di nuyu amateurs yi di nuyu suma patron suma kilifa muy Aziz Ndiaye ñu gën koo xam ci Abdoul Aziz maa ngi koy nuyu bu baax a baax a baax di la delloo kàddu gi ba ci kanam. Baye Ndiaye ci làmb laajoon naa la ko laajaat ndax le wax waxaat du bëri wax mais leeral li wax la defe naa làmb bi ñu ciy dugg moom ànd ak mbër la ci dugaloon muy supporter mbër wala lu lay dugaloon ci làmba waaw man amateur laa comme ni ma la ko waxoon ba le passé rek amateur laa dëgg Géejawaay bëgg làmb suñu waa doon supporter waa fas Tafa Gueye ba mu bàyyi làmb avant muy bàyyi nag la am mbër muy Balla Gaye numéro de ñu yarandoo Géejawaay juddoondoo mu nekk suñu frère nekk suñu xarit ñu ànd moom ci làmb ji. le treize man li ma si njëkk a wax mooy combat Lac de Guiers ak Boy Niang ñaari mbër yoo xam ne ni taxawaloon seen combat jafe na promoteurs yi ko bëggoon bari nañu. bàyyi Ndiaye fa mu jaar ak nu mu def ba mbir moomu yomb ci moom. waaw lamb moom xam nga yàgg nañ ci tuuti rawatina taxawal combat dañu nekkoon ci keppaar ko ki nga xam ne mooy Aziz miin na làmb ji maîtriser na ko te dañ ci doon ànd ak moom di ko jàppale ci liggéey bi loolu moo tax taxawal combat bi jafewul woon ci ñun. ñun beneen combat lañ bëggoon sax taxawal mais bi ñu demee ba ci biir boobu sottiwul la ñu tourné ñëw ci Boy Niang Lac yàlla dogal mu sotti ak jàmm ak ba ñu war a bëri le treize tey incha allah ci drapeau Aliou Sall comme ni nga ko waxee mu nekk maire de la Guédiawaye maire de la ville de Guédiawaye nekk suñu frère nekk suñu xarit moom ñu jël ko tey dëppee ko drapeau bi. ngeen jël ko dëppee ko drapeau bi mais combat boobu maanaam si bu ma la maanaam euh, taxawal bi parce que il faut ñu des foofu tuuti taxawal bi est gaaw na pour mu taxaw. waaw gaaw na gaawul parce ñu ngi ko def ci soixante douze heures naa wala vingt quatre heures parce que dañuy ñaari ménager yi ci Bourkhane baabu ak euh, Mohamed Ali bi ñu waxtaanee ñoom ñu tombé d'accord ñu jot ñaari mbër yi ñu ne bëgg nañu comme ku wër fu mu fanaan moom ak ku wër ku ko wéetali delloo bunt bi du leen boole. loolu moo taxoon taxawal bi méttiwul noonu ci ñun quoi dañ ñu ko yombalal ba mu yomb moo tax amuñu ci benn coono. nga jàpp combat bi pour le treize fi mu nekk nii presque boo xoolee semaine moo ci des wala deux semaine comme ni ñu ko mën a waxee te actuellement bàyyi fu mu toll ci préparation combat boobu. waaw gis nga ñu ngi ci dernière semaine bi depuis ñaari fan ñetti fan ba léegi nelawatuñu ñu ngi ci affaire yi di daw gis nga ñu ngi jéewul ci retard bi sax parce que ñu ngi la joxoon rendez-vous 15 heures une midi mais 15 heures lañ commencé 16 heures loolu yëpp préparation bi ko waral ñu ngi jaabante di lijjanti bagage yi bëgg mu normal bëgg amateur yi bu ñëwee fekk fa lu am solo tey ñun tàmm nañu suñu organisation bëgguñu yem ci bëri bi rek. dañ bëgg def ay manifestation yu am solo def ay spectacle def ay affaires yoo xam ne daal vraiment dina bëggal amateurs yi loolu ci lañ nekk te noonu lañ ko nar a jàppoo incha allah ba le treize duñ ci am luñ ci noppalu duñ ci am benn détail dañ ko bëgg def daal telle sorte boo ñëwee ci stade bi di nga kontaan trop trop di nga xam ne yow ñëw nga seetaan say spectacle quoi comme ni nga gis Europe di ko gis feneen loolu lañ bëgg def ci làmb ji incha allah. Gaston def na fi lu nekk Ligue Nicolas Aziz ñun dañuy ñëw rek jaar seen tànk rek jéem leen a roy tuuti ci liñ daan def yokk ci bagage yi mais mënoo fay def lu fi kenn deful xanaa yokkaat bagage yi rek defaat leneen quoi. mënoo def lu kenn deful mais dama gis benn ci bi combat bi préparation combat bi ak communication bi benn jour nga wootee 2STV ay nit ay kilifa yoo xam ne gëjoon naa leen gis si làmb bis boobu ñu génn. ay ñoom Père Birahim mën naa ko lim ay ñoom Ngañ Jaañ xam nga bëri nañu su ma leen dee lim duñ fi jógee ñëpp génn kere nga dajale leen ci benn plateau te loolu nekk lu jafe jamono ji loolu bàyyi nu mu ko réussir. waaw xam nga tey Ngañ Jaañ moom suma ma moom su ma koy wax du ma fi jógee moom ginnaaw bu ñu di organiser làmb bu bu ñu ginnaaw bu ñu bëggee làmb ba koy organiser nekk ci nii tey ba ñu ràññee ñu ci am na ci part de responsabilité bu mag parce que sunu frère la sunu xarit la sunu lépp la digganteem ak même chose. tey Père Birahim moom suñu nijaay la sunu papa la parce que moo suma yaay ñu dëkkoon Grand Dakar boobu ñu juddooguñu ñu màgg di ànd ànd bu rafet tey ba mu xam loolu ñu nekk ay jarbaatam moo tax fu ñu ko mën a woo daf ñu fay wuyu si loolu moo waral loolu ñoom Max Mergan yàgg nañu depuis ci place Aziz Ardo bi nekkoon Pikine ak ñoom Paala Diop Malick Thiandoum ñoom euh, Omez ñooñu suñuy frère lañu dañuy yàgg ànd ak ñoom di liggéey liggéey am solo moo tax fu ñu leen mën a woo rek dañ leen wuy si muy Bécaye mbay moom suma nijaay la duma ko wax sax Bécaye nijaay laa koy wax parce que Grand Dakar a dëkk suma yaay dëkk Grand Dakar ñu nekk ay xarit ñoom bu yàgg yàgg depuis bi ñu nekkee xale tey loolu mooy daw ba tey ba ñu am ci ñun tofeel ba lu ñu xew la rek ñoom ñoo ñu koy bëgg gën a bëgg événement bi sax ko ñun loolu moo tax nga neen gis suñuy événement toujours ñu ñëw di ko assister quoi ma gis na nga tamit si côté eh, événement boobu waaw gis nañ ci tey mu mel ni ki Baye am nañu mu àndal di ci liggéey mais mu ngi ciy liggéey ci lu jëm ci wàllum pay per da ngay dëggal ndax combat bi pay-per-view lay doon wala bu ko doonee ci ban anam la ko doon ak ñu koy seetaanee. incha allah combat bi du nekk en direct ci benn télé pay lay doon mu ngi daw ci seen affice point com fa lañ koy seetaanee comme ni fi daan am rek soo ko bëggee seetaan bu fekkee Europe nga nekk da ngay dugg seen affiche. nga jënd paas ñu ngi koy jaay neuf euros quatre-vingt-dix bu fekkee semaine combat bi la bu fekkee actuellement ñu ngi koy jaay cinq euros quatre-vingt-dix lañ koy jaay actuellement nii bu nekkee yaa ngi dakaar da ngay jaar TNT deux mille cinq cent ngay jënd nga dem seetaan ko comme ni ñu ko bëggee ragal naa ne nag Babacar il faut nit ñu teel comprendre loolu parce que combat yi fi jàll yëpp loolu lañ ko def mu réussir kon combat bi na amateur yi teel a dem jënd seen code ñii teel a dem jënd seen paas garde ko actuellement nii nii commencé nañ ko jaay soo jëndee rek boo duggee sax di nga gën a seetaan am na lu mbëri ñaari mbëri luñ jot a liggéey foofu lay daw foofu lañ koy jaarale ba keroog làmb ji di jot parce que làmb actuellement foofu la toll sponsor yi bëreetulu partenaires yi bëreetuñu PPV bi ñëw na il faut ñu jàpp ci ndax mu gën a jëm kanam làmb ji gën a am doole. am na ñuy wax tamit ah ci li ñuy fore ci amateurs yi que booy Niang mi nga xam ne nii mooy bëre combat moog Lac de Guiers waa géejawaay tëgg làmb ji drapeau bi géejawaay la mbër mi muy bëreel géejawaay la te moom dugg na géejawaay duggati fa ñu ne est-ce que du bi yoon da ngeen ko lalal fiir ngir bëgg ko caa mbaq xam nga nit ñi ñooy wax loolu rek mais Boy Niang ragal naa combat mu daan géejawaay yëpp bu Aziz bu tëggul yëpp moo tëgg xaaj bi parce que comme maam ak Sakka Dior Aziz moo ko tëggoon te teewu dafa daan Sakka Dior Aziz géejawaay la dëkk boobu combat am ak euh, Mbiis biñ koy bëree ñun géejuwaay la ñu dëkk teewul tëgguñu ko mais moo daan comme am ak les deux ñu ñoo ko tëgg te Aziz boobu géejuwaay la dëkk te teewul dafa daan loolu dara mbër mun ngeen bokk benn kër sax bokk benn néeg promoteur bi ñëw tëgg ko mbër may ñëw daan ko loolu dara ci làmb loolu moom ça n'a rien ak ak loolu mais nit ñi nag il faut ñu gisee noonu c'est normal parce que Baye Ndiaye mënoo koo tudd tuddoo tudd Géejawaay Lac de Guiers 2 yor drapeau Géejawaay Aliou Sall nekk maire bi loolu du dara du dara ci làmb ji ñun dañu organiser rek que le ku ci gagne baax na man daal sama bopp laay fexe ma gagne man en personne. mais est-ce yi nañ la gis ci ginnaaw Balla ak taxawaay boobu ngeen di bañ mu yegg si est-ce la gars yi xalaate da ngeen di bañ mu yegg ci Balla. non loolu loolu beneen affaire la Balla moom mu ngi xaar bu fekkee war na yegg si moom après moom mu xaar ko bu la de guerre bu fekkee dafa ko war a daan loolu problème am la nañ nañ góorgóorlu ñoom ñaar rek. man amul ku ma ci faral man sama bopp laa faral sama réussite laay xool ci kombaa bi ñoom ñaar ku la gañ ku daan baax na. lu tax drapeau Alioune Sall. waaw parce que Aliou tey ñun tey doomu géej Géejawaay lañu moom mu nekk meeru waay yor sunu gox tey ñu gis liggéey bu am solo mu fa def liggéey bu rafet bi mu fa def tey ñu jël drapeau bi delloo ko ko ndax li muy defar géej waay di ko defar ci réew mi loolu moo tax ñu jël drapeau bi delloo ko ko njukkal. li muy def si réew mi temps yi tamit parce que comme ni ñu ko waxee rek olof a ko wax lu def waxul ay di njàmbat temps yi yaakaar naa dégg nga coow Alioune Sall ci réew mi ah. waaw xanaa di dellu di ko ñaanalaat yàlla rek affaire bi gën a sedd coow li yam fi parce que adduna bi ak coow ñoo ànd dëkk bi ak coow ñoo ànd mais lépp rek ci dal lañ koy def Sénégal mun nañu xuloo mun nañu def mais munuñu xeex comme munuñoo xeex benn lañ li tax munuñu xeex nag. boo santul Njaay rek jóom nga sant boo santul Sàll yaa ngi sant Fay baa nga sant Seck ñëpp benn lañu ñoo bokk ay maam ñoo bokk fu ñu jëm boo nekkul murit yaa ngi nekk tijaan wala xaadar wala laayeen kon munuñu kon munuñu jàngu bi ñu ñëpp benn lañu munuñu xasante munuñu defante dara waaw nañ ko waxtaanee rek mu ànd ak dal ak salaam di ko ñaanal jàmm ci coow li yàlla yemale ko fii lépp jeex incha allah ñu ne liggéey bi Sénégal jëm kanam. bésu làmb ja mën nañoo xaar ñaata combat am ci bés ba à part combat mag bi. waaw dii combats la ñuy def am na dix huit mbër ci war a bëri soo ko calculé mooy neuf combats combat bu mag bi muy vingt combats. dix combats. dix combats waay muy dix combats waay. incha allah. léegi si kon ci côté tamit euh, maanaam ay xumbeel ak yu mel ni ki noonu ci bés bi parce que yaakaar naa du doon bëreeg ak daan kese ah, ak way dina am yeneen wala. wax naa la ko sànq dina am ay spectacle am na ay artistes yu war a ñëw pour jouer am na ay benn groupe Ndigal Africa Ndigal ñoom war nañ ci ñëw Ndeye Gueye war na ci ñëw jouer ak yeneen artistes yoo xam ni ñu war a def son et lumière bëgg nañ daal dem ba vingt deux heures wala vingt trois heures comme samedi la toog di dund spectacle dëgg-dëgg ñaari mbëri ñëw bëggal ñu ñu gaaw dem ñibbi waaw. xanaa kon da ñuy defal lamb plus lambi nocturne. waaw loolu lañ bëgg def day lamb plus lamb nocturne dinañ ci waxtaan ak CNG bi ñu yokkal ñu heure bi tuuti ndax ñu mën a def li ñu bëgg a def lépp quoi. mën nañ fa xaar ay Pape Diouf ak ay Wally Seck ak ku ci nekk ci réew mi rek ñoom ñaar dañ la invité bu nga ñëw. léegi kon daal kon jàpp leen ne kon Talla Ndiaye bis bu moom dana xumb dana dagan yàlla nañ ko fekk te tal ko. nañu teel a dem daal jënd seen billet billet yombal nañ ko. waxaguñ ko fenn dinañ ko la jox tey wax la ko fii mu exclusivité billet yi découverte mu ngi nekk 3000. couverte 5000. en explose 10 000. loge officielle bi nekk cinq 25000. xam nga loolu cherul. prix bi abordable la prix amateur la prix supporter la. nañu gaaw dem jënd billet yi. teel jënd seen billet ñu mënut a ñëw stade mooy suñu mag yi ak suñu maam yi ak suñu nijaay yi ñu dem jënd code yi wala ñu jaar TNT wala Orange Money jënd seen code teel a toog seen télé seetaan ko incha allah. Baye li ma koy laaj ba tey ci côté boobu arène nationale dañuy dégg ñaa yéen combat yi xaju fi nangam nangam yow jàpp nga ne combat bi xaj na arène nationale. non man li ma jàpp man naa personne xaw ma nag keneen combat yi fi nekk yëpp xaj nañ foofu. dem naa fa la fois passée cette année Gris 2 ak Reug Reug mais la ma fa gis combat yëpp xam nañ foofu mbër yëpp nag laa wax xaj nañ arène nationale. kon daal bokkoo ci jàpp ne benn combat am na combat fa xajul. non non man sama gis-gis. te man ni may organiser nii su jàllee incha allah su may tëggaat beneen combat foofu laa koy organiser. combat bu mën a doon te combat yi mag laay organiser fa laa koy yóbbu incha allah. déwén kon am na loo ñuy préparé. waaw incha allah déwén bëgg nañ def trois dates. ay combat yu am solo actuellement commencé nañ ci liggéey mais comme kër xajul ci kër dañuy bàyyi ba bii jàll rek ñu soog a ne ci leneen quoi. Ama Baldé da wax ak moom. Ama sama xarit la. ci la ci boo ko bëgg a jox. waaw combat bi moom moo ko waroon bëree mais dafa am lu des tuuti rek mais peut-être yàlla dina ko dogal déwén incha allah. moo kan. moo Gris Bordeaux lañ doon waxaale. ba tey yéen a ngi ci ay pourparlers wala. waaw maa ngi dégganteeg ñoom Gris nag gëj naa ko dégg mais Ama moom gëjuma ko dégg. naa ne leen instant bàyyi rek bu mu bii paree incha ñu enchaîné leen ko. Gris joxoon na la accord. Gris d' accord na. combat bi desul woon ci Gris Bordeaux ci Ama Baldé la des xëy rek un bon jour ñëw yam ak ki nga xam ne Babacar mi nga xam ne wala Lamine wala Pam Maguette wala Bour Guéweul mi nga xam ne toujours ñu ngi rey seen bopp ñu dugg fu nekk ñëw yam ek ki nga xam ne defu ci dara ngeen bëgg a yam même pied d'égalité loolu lañ dul d' accord loolu rek moo tax ñu bëgg ko def mais du nekkul dañuy siis kenn wala dañuy iñaan kenn làmb ji dafa toll fi nga xam ni ku ci bëgg dara da nga ciy def dara parce que yéen làmb moo tax ñu leen fay ñeneen ñi nañuy jéem a góorgóorlu di def li ngeen di def di yàq seen carburant di jël seen temps di yàq seen lépp ndax làmb ji il ñu def loolu mais duñ ko def dañuy toog seen kër wala ñu toog seen bureau ba jour làmb ñëw ñu laaj accréditation ñëw di xëccoog yéen di xëccoog ku nekk te fekk or que daj ngeen ci coono bu nekk loolu moo tax nag ñu ngi choisir dix personnes yi xam ne ñoo ci gën a sonn vraiment ñu jox leen accréditation ñu ñëw def lu ñu bëgg a def du ñu déranger amateur bi du déranger mbër mi du ñu déranger supporter bi ku leen di gis dañu xam ne lii ñuy def nii jaaru pour ñoom loolu rek moo tax ñu bëgg ko def. kaw supporter yi muy Guédiawaye di pekin ban appel nga leen di lancer ci non à violence bisu combat ba. waaw ñoom nañu ñëw ak dal rek parce que Guédiawaye ak Pikine benn la rek Pikine moo jur Guédiawaye Guédiawaye moo jur parcelle te ñooñu ñoo fi yëpp ay mbër ak caaro yi après Medina ñëw Fass Gueule ak yeneen gox yi te arène bi position bi mu nekk diggante Pikine la ak géej Guédiawaye kon Boy Niang mën nañu wax ni mooy dalal Lac de Guiers supporter dinañ ñëw ak dal ñëw ak masse fair play que le maire gagne nga supporter bu sa mbër daanee nga ànd ak moom dem ñibbi bu sa mbër daanoo nga ànd ak moom dem ñibbi loolu rek lañ leen di ñaan ñu bañ fay ni benn violence yaakaar naa ni sécurité bi dina doy lépp dina doy incha allah bàyyi léegi daa xaw a soppeeku ci communication de sénégalais yi ñoo ko wax nañ léegi daal bàyyi dafa dal léegi vrai VIP xam nga daal vrai kilifa bokk léegi bàyyi loolu noo ko dégg sénégalais yi ñoo ko wax si mbedd mi. xam nga bu fekkee da nga am bu mel ni Ndiogou Mbaye Ngouda Amina xam nga moom c'est mon ami su ma defee erreur daf may njëkk a yuuxoo di ma ërtal léegi nag soit que boo koy wax da nga koy sédd cër tuuti ba doo mën a def benn erreur maa ngi koy bu baax moom suma frère la. nekkatul sax suma xarit dafa mel ni maa ngi moom ñoo bokk ndey ak baay maa ngi koy gërëm ci jàppale bi may jàppale ak taxaw bi bu baax a baax a baax di gërëm nag suma sponsor yi ci mel ni Demba Ka EDK Wel moom suma grand frère la maa ngi koy gërëm di gërëm waa groupe bi yëpp di gërëm waa Huile Jador bu baax a baax suma frère Abdoul Aziz maa ngi koy gërëm di gërëm waa Lonase ak waa Connectec ak waa Pro Auto di gërëm waa làmb ji yëpp Babacar di la sant di la gërëm di la nuyu Talla di nuy ay xaritam yëpp ku mel ni Ndiogu ma am sama soppee la moom maa ngi koy nuyu bu baax mbaax Ndiogu Mbaye mais Père Bourkhane lu mu lay toppee nii moom. pour ànd xaalis laa ko war a jox boo mu ñëw fi nii. <laughs>